sunu mbokk internautes yi salaamaaleykum sur le planète 24 ñu wax tey seen émission banlieue bi donc ñu ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Mamadou Yaya Ba nekk homme politique ici à Guédiawaye donc Mamadou Yaya Ba ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. kan mooy Mamadou Yaya Ba. waaw Mamadou Yaya c'est je suis un conseiller municipal à la commune de Wakhinane Nimzatt et à la ville de Guédiawaye. Mm-hmm. Et je suis également le président de la commission environnement, assainissement et cadre de vie.

jox mm. ñi nga xamante ne ñooy syndicalistes des impôts et domaines. Mm. Euh, mm. mooy sa xalaat ci loolu waaw maa lay sant bu baax di rafetlu li ngeen ñu woo fii tey pour ñu waxtaanee géejawaay mm-hmm. ndaxte nag ñun ay doomi géejawaay lañu géejawaay dañoo ñor. Mm-hmm. mais ñiy wax aar sunu suuf xaw ma aar sunu kii nañ xam ne am nañ ñu taxaw si loolu lu yàgg mm-hmm. ñoom tey la ñu tàmbale ñun ay conseils municipaux lañu. sunu wareef mooy euh, aar euh, moomeelu géejawaay aar moomeel askan bi bu géejawaay aarale population yu géejawaay fexe tamit projet yi nga xamante ne day am si yeneen i dëkk ñu am ko fii nii si géejawaay donc du euh, ñu ñëwee nag si question bi nga xamante ne moom nga posé man dama ne toujours approche bi day xaw a wuute euh, seetlul doo xoole si littoral bi di nga fi gis ay cité Air Afrique di nga fi ay cité Santenac di nga fi ay cité Comico di ainsi de suite yu bëri na ay cité Sofraco ñoo ñëpp nekk na waaw cité Sones nekk na yoo cité yoo xamante mais ñoom ñëpp dëkkuñu géejawaay te loolu moo mag régime Macky Sall bi alors beneen bi mooy ay magistrats yooyu ñuy wax ak ñi nga mun a wax ay ay syndicalistes impôt domaine c'est des sénégalais man am naa droit dem Tambacounda am fa kër yow am nga droit dem Bakel am fa kër donc loolu kër suufu Sénégal doomi Sénégal koy jox bu ñu ko wax ne région bi da ngay dëkk région bi la région bi li ñu mën a wax nag mooy au moment où ñu ngi jox ñeneen nañ jox doomi géejawaay et fi may xam xaw amee problème ak ñi nga xamante ne ñooy wax des fois wax bi dafay xaw a des cohérence parce que yow do taxawé ne waruñ jox magistrat waruñ jox ñu dëkkul géejewaay nga dëgg né ci programme yi amna ay cité municipale yo xamante d'ailleurs ay cité municipaux yo xamante amna fi amaat fi c'est pas la première fois également ñoo ñu nek ay doomi géejewaay ñu waruñ jox ay conseils municipaux légui ñan lañ wara jox est-ce que dañu wara nek fi di xol ci doomi géejewaay yi ñi ñu wara jox ñi wara war a jox ñuy xol ñi wara jox kay les élus locaux kay ñooñu yaakaar naa ne kenn gënu leen si mun a war a mun a am droit parce que ñooñu dañ leen fal waa Géejawaay ñoo leen fal ne leen yéen ñu fa waxal ñu fa léegi doo éliminé ñooñu dañ ngay jox da xool yaa ma neex kon nga jox leen donte ñu nekk ay doomu Géejawaay c'est-à-dire nag combat dafa war a cohérent da ngay xam li nga bëgg nga jublu si ne lii laa bëgg leneen li nag nañu xam ne xëy na bu ñu seppi xëy na cité municipale bañ sa tudd rek di koy wax am na ay yeneen projet yoo xamante ne ay projet état ak ay projet yoo xamante ne ville bu Géejuwaay. waaw ci projet yooyu laa bëggoon ñëw est joxe joxe joxe ko ay nit dëkk ci tamit mënut a ñàkk est-ce que ko def comme almer yi nga cimetière yi nga xamante ne président de ci projet yow littoral boobu est-ce que mënuñu ko def ay structures nga xamante ne nit yi mën nañ ko mën nañ ci am njariñ lu ci mel ay ci ay ay espace jeunes yu nga xamante ne nit yi waa géej waaye dinañ ko ñëpp dinañ dinañ ci yam utiliser ko moo gën ñu koy joxe tamit. waaw xam nga loolu loolu bokk na si li nga xamante ne ay projet la xam nga nag projet dafa bëri ay façon comme ni nga ko waxee noonu mun na am yoo xamante ne c'est dans le cadre de l'éducation am si am na yoo xamante ne c'est dans le cadre de de la culture am na si am na si yoo xamante ne dans le cadre de ñi nga xamante ne moom mooy ñiy liggéey métier métier kii ay artisans yooyu yëpp am na fi am

ñu ne ay doomi géejawaay lañ ko war a jox kuy xeex moomeelu géejawaay loolu da nga ko war a tàccu. alors ñoom bañu eh, la ñu bëgg ñu jariñoo li nga xamante ne mooy littoral bi. mais eh, déjà cité municipal nu mu koy waxee euh, conseil municipal yooyu ils sont de géejawaay benn ñaareel ba projet yooyu ñuy def noonu yi si xalaat a def. projet yooyu nag pour waa géejawaay la wax nga ko fii géejawaay xoolal un département comme géejawaay amul armée Pikine la ñuy dem di robi Pikine fees na. Mhm. des na tuuti duñ di nga yor sa koor di xool foo koy robi di wër

Guédiawaye dafa ben télé bu fi am lu yàggut lo xamantene VDN 3 lañ koy wax VDN 3 bobu non dafa xaj bir filao yi léegi nag kenn tabaxagul ci diggante VDN 3 bi ak géej gi xam nga fiñu bëgg tabax xam nga fiñu bëgg de projet fi nga xamantene ne yi fa lañ nekkon ben moy filao yi seen at biñu wara dundu da fay def dañ fa dépassé nañ ko moo tax ñu ngi dé benen ba la nga xamantene mo moo ñu tek ko fa li nga xamoon taxoon ñu ñu defoon fa ay filao c'était d'abord pour fixer dune pour fixer dune souci suuf souci téye suuf si du ko defee géej bi baña avancer mais ñu demee ba tëli jaar foofu kay ñi xam nañ ne nag yaa xayti euh, loolu amatu fa njëriñ comme amatu fa njëriñ nag dañ koy dindi exploité ko pour njëriñ ñi askan bi mais duñ fa nekk ne ay garab yoo xam ne dañuy dee mënatoo fa fiixlu mënatoo fa def dara ba pare mu nekk euh, sur le plan sécurité c'est loo xamante ni amatul sécurité pour ñi ñu nga xamante ne ñoo dëkk si côté bi donc je crois que ne nag nit ñi dang mbir yi duy avancé nit ñi dañuy avancé mais duñ reste esthétique rek je crois que c' est la réalité. yow daal jàpp nga moom amagu fi. que ça ko nañ ko jox doomi sénégalais. parce que man man bëgg naa dëkk am Tamba kër. bëgg naa am Mbour kër te dëkkuma Mbour bëgg naa am feneen kër kon nag dañoo war a am droit sénégalais fu ko neex te mu am possibilité ba. te mu jaar si yoon mu am foofa kër. kër yi fii nii Guédiawaye newuñ ne duñ magistrat ay doomi sénégalais lañ ay fonctionnaires sénégalais lañ cest li ñu war a kaas mooy duñ ko joxee ñu dëkkul Guédiawaye nañu fexe ba ñu dëkk Guédiawaye ñu am ci te loolu dynamique boobu yaakaar naa ñu ngi ci loolu moom am solo. kon ñoo ko déggandoo Amadou Yaba nee na Guédiawaye amul blocage littoral. donc jàll ci beneen question bi nga xamante ne mooy tamit actualité la mooy euh, euh, mm-hmm. ñu gisoon la ci yow aussi nga bokkoon ci ñi leen di jàppale. ci mm-hmm. combat boobu mm-hmm. noonu. ñoom ak euh, seen promoteur bi Mbaye Fall. donc aussi ay temps toog nañ gisatuñ la. te ak temps yi gis nañ ci ay images yu nga xamante ne jour bi ñuy amal li nga xamante ne mooy seen grève de la faim bi. donc ñu gis image yu nga xamante ko. yi. Hmm. ñu leen a mal hmm. di leen di leen euh, néewal doole. Hmm. <laughs> alors man de xaw ma sa foo luxatee bi xam ne man bokkoon naa ñi nga xamante ne maa ngi si doon euh, maa ngi si doon dox loolu moom après di nga ma jël euh, si <laughs> waaw off wax ma. alors c'est vrai ba ñu tàmbali wax ji xeex bi ba ñu ko njëkk a commencé point de presse ba ñu si njëkk def maa nga fa teew parce damaa dëkk damaa dëkk fii nag

wax deug yalla ñi nga xamante ñooy association bi si limu am comme information parce que maa ngi maa doon dox dem nañ ñu gagner première instance dem nañ ñu gagner waat dem nañ ñu gagner waat de ba ñu gagner alors donc euh, yaakaar naa ne tamit euh, force doit rester à la loi euh, nekul ne tay gagner nga rek da ngay xaar do gagner ba par amna kay ay yo yoo li lay jox tam pour lay wane lay léegi joxaat nañ jox nañ la ko. procédure bi il faut ñu top procédure bi jusqu'au bout man je suis du côté des populations mais tamit deug fu mu nekk rek nit ñi fa lañ wara and yàlla sur le plan juridique joxagum na leen dëgg nañ topp dëgg boobu noonu bañ ko bañ ko yàkkamte parce que lañ xaar nag yàgg na donte nag wax dëgg na nag ay borom kër la am na si ñoo xamante ne liñ amul lépp dañoo ñëwoon financé woon ko foofu noonu ñu yàqal leen ko métti na si koo xamante ne xam nañ dëkkuwaay ni mu demee da koy dajale ay at ñëw def ko fenn duñ ko yàqee day métti te man dama ne toujours buñ di gaaw a yàq nañuy dem ba procédure yu jeex ñuy soog a dem si yàq ba mais doo yàq ba pare delloowaat ko nit ka mu war a utiwaat lu mu sa defaat est ce que am na lu mu sa defaat mbaa mu dem di luye jiwaat nekkul ne loolu muy luyewaat mooy économie bi mu waroon jël pour def ko sax moo tax toj dafa war a nekk loo xamante ne luy luy war a yéex luy war a mujjee ba nga xamante ne gis nañ dëgg bi fu mu féete ñuy soog a toj ñu wóor na ne c'est définitif mais doo tojalee nit ba pare après ñëwaat joxaat ko ne ko léegi yaa moom yaa am ca xëy na dédommagement a am a wax mooy. cassation. Hmm. ñu kasewaat décision bi joxaat ñële dëgg. Hmm. donc 2013 ba 2020. Hmm. jàpp ne procédure bi aussi yàgg na yàgg bu nga xamante ni borom yooyu nga xamante ni plus de 250. quatre familles mhm. yàqoo loolu yàgg na parce que aussi bul fàttali ñoom bi dañoo tabaxoon seen kër mhm. moom mu ñëw ànd ak gendarmerie ak descos mhm. ñu en présence descos ñëw di toj kër ñu nga xamante ni bañ fay toj sax amaana nekkuñu fa woon waaw xam nga moom euh, benn at sa dafa yàgg si borom kër benn at rek dafa yàgg si doo koy fay location dafa yàgg waxuma la nag loo xamante ne ëpp na juróomi at donc loolu métti na mais nag liñ muñ ba heure bii ba ñu naan gagné nañ si si si si li nga xamante ne mooy instance yi parce que cassation foofu la mbiri yem ah foofu la mbiri yem du nekk ne dem nañ bi foofu la c'est des yaakaar naa lañ muñ dootuñ ko muñaat léegi li ñu war a def ñu moom mooy topp procédure bi ñu toppoon ba yàlla ba ñu am dëgg nii ñu continuer ko mu jeex moo gën nekk fa di xeex parce que policiers tamit ñoom li ñuy def moo tam ñooy ñooy aar li nga xamante ne moom la ñëpp bokk bala ngay ñëw di koy jël da ngay wone loo xamante ne luy wone ne mën nga ko jox mën nga ko jël donc man je suis de tout cœur avec eux mais il faudrait que tamit ñu am un peu de retenue xaar mun nañ nag góorgóorlu ba ñun euh, ñu wax ba nga xamante ne nguur gi tam li nga xamante ne dem nañ ba nga xamante ne décision euh, judiciaire am na ñu jéem leen a jox seen moomeel ñu jublu si. parce que nag ku xaar juróom-ñaari at ba dugg si juróom-ñetti at wax dëgg yàlla kooku mun mun a wax ne muñul mais nag loo muñu tamit juróom-ñetti at ba nga xamante ne yegg nga fi nga xamante ne yàlla defal na la sutura mënoon a demee neneen mais nga gañe ñu xaar tuuti mu mot.

et puis la ma si doon jàpp ba ñu xëy na mu am lu si jotoon am tuuti dinañ si góor góorlu tamit jàppaat si ba li nga xamante ne mooy seen ñu jox leen ko. jàppale parce que yéen tamit yéenay voix ñi nga xamante ne yéenay waa Guédiawaye. waaw incha allah donc na fu nga xamante comme ni nga koy defee rek ñu ngi woo tamit yeneen homme yi nekk à Guédiawaye. di mm-hmm. leen jàppale ci loolu parce que ñu mm-hmm. xamante ne ay doomu Guédiawaye lañ. Mm-hmm. te soxla nañ loolu nga xamante mooy seen moomeel. parce que ñoo ko moom. donc bon troisième point bi damay Mamadou Yaaba lan nga bëgg euh, en tant que comme ni nga nekk homme politique lan mooy sa projet à Guédiawaye lan nga bëgg euh, exactement à li ma bëgg daal mooy Guédiawaye fu ñu ko cité bu ñu waxati ville dortoir ñu gis fi ay usine gis fi ay gis fi gis lépp loo xam ne ñu ngi koy gis ci ci ville ville yi émergentes yi ñu gis ko ci ci Guédiawaye ñu gis waaw mooy li may wax fexe ba kuy ndaw Guédiawaye nga mën a xëy Guédiawaye wàcc dox ñibbi sa kër yaa ngi dëgg ville émergente bi nga xamante ni ville lumière bi nga xamante ne moom la ko président bugg a def ñun ñëpp yàlla ñu ñaan yàlla ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko du boobaa nag ñun ñëpp ku si nekk te fa nga nekk am na loo mën am na loo mën a apporte sa sa sa société du boobaa dinga nga ko taxawee ba mu motee ko en tout cas ñun si loolu la ñu nekk suñu suñu suñu suñu xalaat yëpp mooy géejawaay fu ñu sitee fu ñu waxee Sénégal ñu ne demal géejawaay loolu mooy la xam nga loolu loolu loolu euh, nekk na loo xamante ne euh, xëy na yeggaguñ ci sax yëgaguñ sa euh, ki fa nekk muy sunu grand frère muy Aliou Sall mu ngi siy def liggéey bu mëcc ayib. Mhm. fii si commune bi tamit am nañ si suñu benn grand frère boo xamante ne xëy na mu ngi jéem mm, affaire yi mu ngi xaw a jóg ka daan waaw. alors waaw non mënuma wax télé sa parce que tamit bon am na si loo xamante ne daal euh, am na lu bëri lu des. Ah. am na lu bëri lu des. Ah, am na lu bëri lu des c'est vrai que lépp matul. am na lu muy jëm mais am yu bëri yu des yoo xamante ne tey jii wax naan waroon na mën a dépassé fii nii. yow jëm jëm est-ce que amoo ambition jëm jëm eggle loolu. ambition fépp fu leer ne duñ fa taxawee liggéeyal waxi naan. ñun dinañ fa taxaw du nekk mairie bi mooy tax ñu liggéeyal waxi naan. ñun dinañ taxaw pour liggéeyal waxi naan. bëgg na wu nekk maire non xam nga ñi nga ne ñoo gën a si maire bi soxlawul nga leen koy wax. Ah. parce que tamit l'histoire li muy rappelé 2014 maa ngi moom ñoo doon xëccoo président de la république ñaan ne ma Yaaya devant tout le monde je le dis teel la nekk di wax devant tout le monde président mun na déglu lii moo ma ne Mamadou Yaaya je te demande solennellement de te retirer. d'accord <laughs> mm, président de la république nekk président parti. Mhm. sa parti bi nga bok du la ne je te demande solennellement de te retirer nga bàyyee ko. te xamé ne ñun amuñu woon fixation rek pour être maire mhm. mais nak gëm nañ ne duñ nekkoon maire 2014 ak léegi waxi naan wax dëgg yàlla changé na. weesu na fii kon nag gars yi jëm leen fexe Mamadou Ba ñëw positionné parce que moom nee na kii lañu euh, promettre lu garaaw daal biir waax daal donc Mamadou Yaya Ba ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup kontaan nañu vraiment ci waxtaan bi. ak yéen ñu ak